asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yenn ci waxtaan bu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk ñu bëggoon a sànni ay kàddu ci suñu jenn doom suñu doom la ndax mook suñuy doom ñoo maase mënuñoo noppi ci ay waxam ndax ñoo bokk réew mi mënuñoo noppi ci ay waxam ndax dafa mel na lu jëm ci diine lay waxe mënuñoo noppi ci ay waxam ndax valeur yi nga xam ni moom lañuy sàmm duñu bàyyi kenn nag di ci dugg te xamuñu noo ciy duggee comme réew mi nag moom bés bu ñu xëyee suba gis modèle bu bees man ci commencement ba dama jàppoon ne rekk loolu tubaab di wax illuminé la dans ses élucubrations mooy koo xam ni kii danga naa ne am na lu la feeñu nga nekk ci sa ay xalaat ak i sotteeg sottandikoo waaye bi ma gisee fan yii muy feeñ lu bari sama xel dellu si ne moom moo fi waxoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du référence wala du modèle ba koo firee ay feemi boppam ma dem daal li gën a gëstuwaat ay mbiram bi ma duggee gis naa vidéo yi bari na ci ay njaxasaan lool nag wax dëgg yàlla benn dong laa leen ciy wax mooy ku jàppe laas bi génn ci bëtu nit ne sobe la mooy wax dëgg yàlla sa wàllu xam-xam ci fiq rek moom gàtt na lool bu doon benn wax nag ñaari wax nga ne xëy na sax jaru ko donte nag lu jaruta wax moom gisuma ko ci réew mi waaye koo xam ni kii diirub weeru koor gi yépp mu ngi taxaw ci plateau ñu koy laaj mu mel ni mufti koo xam ni kii dafa jeexal téere yi ci diine ji muy wax ay wax yoo xam ni yii maa ko jur avec tout le respect que je lui ndax jàmbur la ci man ay xuraafaat la sans tête ni queue des propos inintelligibles defe naa dégg na tubaab dana xam li may wax ay kàddu yoo xam ni amul bopp amul geen amul it nag delluwaay ci diine amul benn référence bu mu lay wax ci alquran amul référence bu mu lay wax ci hadith amul benn référence xel dong lay doxalee di mel na dafay bëgg a wone un sens profond lu gën a xóot ci li nga xam ne moom la alxuraan wax wala lu xadis wax wala lu fi ay boroom xam-xam bàyyi nga wone ne am na sens caché wala sens profond loolu ça n'existe pas il faut pas être nit day xam li wolof yi di wax naan cuuc day xam lekkam s'en tenir simplement aux choses simples et compréhensibles loolu yomb na noppal sa bopp noppal say bokk li nga xam nga yem ca su boobaa kenn amul bunt bum la jaar sàkk xam nga entre philosophie et philosophisme il y un grand fossé philosophie ñi ko xam dañ ko doon définir dañuy wax discours rationnel et critique sur l'univers afin de mieux orienter l'action individuelle et collective collective maanaam ay xalaat la ay wax la yu tegu ci xel nag ànd ak xel muy gëstu di seet di setantal ci àddina ak li mu ëmb ngir doomu aadama yi seen yo seen xel mën a tegtalu gën a gis gën a leerlu loolu mooy philosophie léeg-léeg philosophie boobu bu fekkee ni amul cëslaay ci gëm généralement boroom sax du du fët philosophisme nag moom la ñuy wax fi fausse philosophie mooy safaan completement ci philosophie mooy abus de la philosophie dugg ci loo wërta dugg ngay def ay jeu de mots devant un public ignorant ñi ci ëpp ay fanatique ñi ci ëpp loolu c'est mauvais pour la religion et pour le pays waaye nag Sénégal ñoom ñoo baaxoo plus c'est gros mieux ça passe moom nay rëy nay jaxasoo ci seenum xel ñu daal di tàccu noonu la sénégalais mel dégg naa ko nag mu ni àndul lak maamam li mu waxoon ni yàlla ku inaccessible la loolu am na ci plein droit maamam la defe naa ne sax lam ca sañe a critiquer ñun sañuñu ko ci ñàkk ànd ak maamam nag moom daf ko waroon a indil ay adilla yu gën a wér li mu wax imaam Malik radiallahu anhu waxoon na ne amul ku yàlla bind ku ñuy mënta weddi waxam lu dul kii nga xam ni moo tëdd nii ci biir xabru bi muy yonent bi sallallahu alayhi bu fekkee ne dangay ngay dangay da ngay indi sukkandikukaay boo xam ne bii ku ko dégg xam ne li nga weddi yenu na maanaa te moom samaam xëy na li waxam jooju safaanoog sa waxi bàyyi bërki démb ji mu fi wax ni gis na yàlla yaakaar naa gént la wax yàlla toog nee toog boom ci boppam moo jekk di jekka di ci définir ci yàlla sama am wax ne yàlla moom il est bu ko nit ñi jotoon ba tey sàkkal nañ ko pexe dëgg la loolu sa maam wax mooy wax ja te sa baay li mu wax moom neexut a défendre moom kon boo weddee sa maam saxal sa waxi baay ah, loolu am nga ci plein droit waaye nit ñi duñu ay dof te sa maam moom bi muy wax weddiwuloon sa baay wax jaajaa jiitu lu yàgg la woon parce que ba fekk booba nit ñi mu leen di delloo si xamal leen ne leen yàlla du ko ñuy gis ñàkk gis yàlla ñàkk àgg ci yàlla nag moom kooku amul ku ko suñu boroom beral amut benn mbindeef ba ci nabi yi yi amul kenn koo xam ni kii àgg nga ci yàlla gis nga yàlla amut euh, dafa am ñaari kuréel yoo xam ni yii ñenn ñi dañ ko saxal Ibn Abbas mooy benn kuréel ba ak ay benn benn yu ko topp ci loola te waxul sax gisub bët gisub xol la wax loolu lépp beneen détail la waaye am na mbooloo moo xam ni Ibn Mas'ud a nga ca Aïcha mi nga xam ni mooy soxna yonent bi sallallahu alayhi wa nee na képp koo xam ni kii wax nga ni jàpp nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa gis na yàlla ci ay bët yi jëmmam yii wax nga fen wu rëy loolu ci gémmiñu Aïcha la jóge soo demee ci Buxaari yi danga nga ko fekk ci wax jooju ma wax euh, Abu Dar laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko ndax gis nga sa boroom yonent bi daal di koy laaj ne ko nan la ñuy gisee ak leer nan la gisee ak leer kon suñu boroom jëmmam ja loolu dafa jomb ci doomu aadama di ko gis kon loola sama maam waxoon moo wér li nga xam ne moom la sa baay bëggoon a saxal moom wax dëgg yàlla wérul te yàlla suñu borom tabaraka wa soo koy gént ci gént kan ngay gis lan ngay gis nan lay bindoo ak ku la naan kooka yàlla loolu it beneen problème la bu yomb leeral amaa nag baatu inévitable boobu nga wax ni yàlla moom il n'est pas inaccessible il est inévitable inévitable xanaa sensu inévitable daal mooy qu'on ne peut pas mooy loo xam ne daal mënee su koo moytu mënee su koo juuy ci contexte boobu sensu wax jooju nga wax dafa dafa amul sens non sens la non sens la aussi moom inévitable par rapport ak inaccessible bu dee ñaar yooyu ngay bëgg a dëppale ñaari dafay dugal non sens mel na na yow sa maam cheikh moo la gën a dégg tubaab moo la gën gën a dégg tubaab fuuf amaa nag inaccessibilité yàlla moom ku ko weddi ku ne ku ko weddi ku ne inaccessible ci bët inaccessible ci xel inaccessible ci xalaat moom suñu boroom boo xalaatee ba yaakaar ne foofa la rek wala noona la rek jàppal ne yow paan nga oto bu amatul essence nga taxaw nga waaye yàlla du ku nit mën a misaal du am amul luñ ko lu dul la mu waxal boppam ci alquran xadir alim xabir sami yooyu xëy na te loolu moo ko wax ànd xamee xameesul sax noona nu mu demee dëgg dëgg dëgg dëgg man de su fekkoon ne am naa benn conseil bu ma lay jox ma lay wax ne la dellul école ndax ay gune ngi la topp am na sax ay mag yu la topp te am nga fi mu ne nii possibilité ndax il encore un peu de jeunesse fim ne nii dese nga ak ndaw goo war a mën a delluwaat lëlu ñaari ak ñetti at ak yomb sax ak technologie beeg jafe jàppandal yi ci nekk nga mën a lëluwaat ñaari at ñetti at yoo xam ne doo dem doo dikk soo amee moyen toog benn place nag jéem a gëstuwaat nag li nga xam ni moo jara gëstu ci diine ji tàmbaleel ci alquran ci xadis yi ci siira bi ci fiq bi loolu yaakaar naa ne moo doon gën lii ngay def parce que nag man ak làmbatu laa gis wax dëgg yàlla yi ngay wax ñuy tàccu ak fettasu man gisaguma ci xam-xam déglu naa ci ay vidéo euh, xëy na dégluwuma lépp waaye li ma ci déglu daal man ay charaat ak i devinette laa dégg man ay léeb ak i lippoon sa baay nag moom wax dëgg yàlla des na ko dégg muy wax alxuraan di ko dégg muy wax hadis di ko dégg muy nettali yoo xam ni mënees na caa sukkandiku sax lu bon bon génnee xam-xam sa maam nag waxaalewu ma ko moom waaye yow moom wax dëgg yàlla moom li nga génnee moom gisuma ci lenn lenn lenn loo xam ni daal lu ñu mën a faram-fànce génnee ca njëriñ lu rëy bu ko defee daal ñu yemale kàddu yi foofu ba beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.